lu bees lu war a dox ci diggante banque yi ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy demlanteek banque yi muy clients yi day bureau intermédiaire yoo xam ne dañuy wër di taataan ay données personnelles yoo xam ni buñ ca jógee dañu koy war a weccoo ak banque yi ngir képp koo xam ne yittewoo nga euh, ab leble wala ab euh, lebale ñu mën see sukkandiku ngir xam ndax yow mënees na laa lebal wala déet ki fi teew di euh, Famara Ibrahima Cissé jiite association clients de banque yi mbir mi di loo xamante ne nii lu ko jaaxal la waaye tamit lu ko yitteel la ndax projet de loi bi dem na assemblée nationale ba jamono ji promulgation moo si des maanaam njiit réew mi xaatim ko ngir mu jàpp ne moo des waaye Cissé ne du si dal ndax bu si dalee clients yëpp daañu loru Cissé bëgg naa nga expliquer ñu tout d'abord ginnaaw bi ma la dalalee nuyu la intermédiaire yooyu yan xeetu bureau ak lu leen sos. waaw Khalifa maa ngi lay gërëm di sant euh, di gërëm. Euh, ñëpp ñi nekk ci plateau bi di rafetlu émission bi nga xam ne sénégalais yëpp a koy suivre. Mm. nga may ma tamit ma gërëm sama vice président bi nga xam ne moom laa àndal. Mm. Euh, moom moo nekk sur le terrain peut-être maa nekk ci écran yi waaye moom moo nekk sur le terrain. def travail de sensibilisation et d'éducation financière bu am mm. solo. di gërëm tamit suñu représentants départementaux yi nga xam ne ay secrétaires généraux départementaux lañ nekk ci département Sénégal yëpp. di suivre tamit euh, émission bi. bi fi mujjee jaar am na ay volontaires. yu leen yu euh, leen façon yéene abal wala jox leen fu ngeen dalloo ndax loolu mujj naa sotti. mujj naa sotti euh, manifesté wu nañu ba tey am nañ fu ñu fu ñu dal. alhamdulilah di recevoir ay plaintes clients yu ñëw di ko jooytu si ñun ñu koy faj di ko saafara. très laaj bi nga laaj dafa am solo. Hmm. bureau d' information sur le crédit. Hmm. ay bureau la yoo xam ne ay bureau intermédiaire la. Hmm. nekk diggante emprunteur bi. ak banque bi. bureau yooyu nag ay privé mhm. ñoo koy gérer mhm. d'ailleurs ki gagné euh, bureau bi nga xam ne moo yor Sénégal Crédit Info Volo ivoirien la moo ko gagné bureau yi seen cër mooy euh, dañuy collecter ay information mhm. ay information personnelle clients yi maanaam daanaka léegi képp kuy client depuis 2014 parce que may fàttali ni loi la woon bi nga xam ne assemblée nationale da ko voté depuis 2014. buy wax ni client bi bu ko neexee mu joxe information yi bu ko neexee mu bañ ko joxe ñun booba dañ ne comme ay information personnelle la te loi bi dafa wax ni bu neexee client bi mu joxe ko bu ko neexee mu bañ ko joxe ñun ñu ne client yi seeni information confidentielle bu ko kenn joxe. Mm-hmm. de 2014. à 2018 xam nga ko loolu. information yi wax ñu yan par exemple. information yi mooy. Hmm. état bi da leen di ibbil serveur seen serveur état source état bi. Hmm. facture électricité képp kuy client banque bureau yi dañ koy collecté di ko commercialiser. Hmm. facture téléphone facture loyer casier judiciaire bu dee def nga kaso wala mosoo def kaso sa données personnelles yooyu. dañ koy jox ñu koy. Euh, bureau yooyu ñu koy commercialiser sa dossier médical sa ab feebar. waaw nga am ko bureau yooyu dañ koy collecté di ko commercialiser. xam nga loi bi bu mu génnee en 2014. si loolu dañ ko bind dafa ne loi baa ngi nii maa ngi ak euh, projet bi li ci gën a garaaw laa lay wax. Hmm. parce que loi bi dafa waxoon bu la neexee nga joxe bu la neexee bul joxe. Hmm. de 2014 à 2018 amul résultat ñu génnee benn projet de loi yóbbu ko assemblée ne désormais amatul consentement wu client bi obligatoirement client bi day joxe information pire encore mooy 2014 ba léegi képp kuy client boo xam ne mës nga bénéficier wu prêt concerné la la parce que say information léegi danga koy joxe forcé autrement dit autrement dit mooy kii nga xam ne 2014 jàpp na ne bu ko neexoon mu joxe bu ko neexee du joxe ba tax mu jëloon prêté joxewul 2018 ak décret bii ma yor dafa wax nii léegi kooku sax obligatoirement day joxe information c'est rétroactif ce qui veut dire que suñuy données personnelles yoo xam ne ñoo ko moom projet de loi génn na dem assemblée nationale ñu voté ko sans débat parce que waxuwul journaliste yaa ngi fa woon mënuñu woon euh, projet bi ñu teg ko ci kaw table bi waxtaanee ko bu ko defee sénégalais yi xam li mu doon mënuñu koon défendre moo tax ñu voté ko sans débat moo tax ñun ñu ngi ñaan président de la république loi bu mel nii mu bañ ko promulguer parce que li muy indi ci conséquence moo graaw bu ci jëkk mooy day tax taux d'intérêt bi gën a yokk xam nga ni muy gën a yokk mooy banque yi duñu mës a supporte coût boobu parce que say données personnelles yi nga xam da nga ko joxe gratuitement et bureau privé bis boo soxlaa prêt banque ba day dem jëndaat ko ci bureau privé ñëw facturer la mu nekk commission si sa nga ki ki ko yor xeetowul sax ci réew mi xeetowul ci réew mi espace UEMOA la bokk Sénégal gagné ko euh, dëggal validé ko en 2014 à l'Assemblée nationale tey projet baa ngi nii boo xam ne article unique la buy wax ne boo leen bëggee ma liiral leen ko ngeen dégg lire que lire l'obligation euh, article unique il est inséré à l'article 53 de la loi 2 numéro 2014 2 du 6 janvier 2014 susvisé un alinéa 5 rédigé ainsi qu'il suit. Mmh. L'obligation d'obtenir le consentement préalable du client prévu à l'alinéa premier ci-dessus ne s'applique pas au client ayant bénéficié de crédit avant le 7 janvier 2014. Hmm. loi bi 6 janvier 2014 dañ ko voté. mu entre en vigueur le 7 janvier le dugg consentement la doon laaj parce que euh, motif kii yaa ngi euh, mun naa la ko liiral nga nga gis ko exposé de motifs yi dafa wax ni le partage de l'information sur le crédit est basé sur les principes clés de réciprocité de confidencialité et du consentement explicite et préalable du consommateur avant toute collecte et diffusion des informations le concernant boobu moo doon bu 2014. Mhm. consentement explicite mooy bu 2014. Mhm. ñu ne la cependant il convient de reconnaître mhm. que les avantages attendus du partage de l'information sur le crédit risquent de ne pas être atteints en raison de la faiblesse des données collectées notamment sur l'historique de crédit qui ne permettent pas d'alimenter la base de données du BIC <laughs> et de produire des rapports de crédit bon. de qualité. on a compris c'est catastrophique. leer na léegi xam naa la bëgg a laaj balaa ñuy avancer Sénégal am na kuréel goo xam ni moom lañ fi teg pour muy euh, protéger lép lu jëm ci wàllu données personnelles justement. wax ngeen si ak ñoom. interpellé nañ leen. luñ si wax. waxuñu si dara ba léegi mais xam naa ni ban moment ngeen leen interpellé. war nañ ci ban moment ngeen leen interpellé war nañ ci parce que loi bi. Hmm. même bu lee bu leen décret la. waaw projet de loi la. projet de loi la non non mais dama ne ñoom lan lan moo nekk seen réaction. réagir lu ñu. très bien Charles. waaw Khalifa. man lu ma jàng si lii mooy que on est en retard sur lépp. Euh, lépp chaque année Doing Business day produire benn projet benn benn rapport. Hmm. si biir rapport boobu mu am lu mu wax si Sénégal avec les pays de l'UEMOA di condamné di pas di condamné mais. di wax le problème que nous avons si xaalis bi mhm. cette partie de l'Afrique est la partie de l'Afrique la moins lu mu wax ambitieuse ak xaalis buy ventiler si biir espace bi si mhm. prêt yi maanaam si diggante kuy leb maanaam banquier bi wala yeneen institution y a toujours des problème mhm. loolu boo xoolee dënnu business ku koy def c'est la société financière internationale moom mooy produire affaire boobu moom moo joxee recommandation boobu moom moo ko jox jox ko au pays de l'UEMOA donc décision bi déjà c'est pas une décision sénégalaise mm-hmm. décision boo xamante ne commencé na déjà à Abidjan Sénégal fak mu def ko mm-hmm. comme lu mu ko waxee c'est de l'information financière lan la ñu constaté dafa am ce qu'on appelle l'asymétrie de l'information financière entre kuy laaj ak kuy joxe mm-hmm. mu am problème boobu ñu lu ñuy def pour que koo xamante ne boo ñëwee laaj ñu mun la jox ñu mun la leb boo ñëwee effectivement noonu lu taux de bancarisation yaa y a quelques années de ça était de 6 pour cent au Sénégal mm. tey paasewul 15 pour cent mm. c'est un sérieux problème pour un pays qui veut se développer mënul ne parce que théorie théorie xaalis bu ngay denc mm. épargne bu ngay denc mooy yóbbu dëkk ñun amul donc mu nekk lu doy waar du ne bon il faut que ñu créer affaire boobu yow la ngay leb mais par exemple tey boo ñëwee leb gars yi ne la banque bi ne la amoon na ay données yu mu amuloon si yow léegi day am possibilité dem si données publique données publiques mooy que faw boo boo lebee xaalis yaa ngi liggéey donc am nga facture Sénélec mm. am nga facture ndox am nga facture Sonatel yu demee noonu mm. mu am yeneen données yoo xamante ne c'est ça des données personnelles les données personnelles mooy sa santé état de santé boo lebee millions de francs CFA <laughs> foog ñu xool est-ce que ça waay yoroo dund jàngoro boo xamante ne à l'article de la mort nga xam ne après pour récupérer affaire boobu loolu yëpp si biir ngi si bon ça va au-delà dem na ba si ay même ta fois religieuse foo bokk ak yu demee noonu yëpp yëpp daf si bokk mu am ay affaires yu bëri si biir création big bi c'est une société anonyme <coughs> société anonyme maanaam sénégalais war na ko mun a créer wante nag faw nga bokk UEMOA faaw nga bokk UEMOA donc ce n'est plus une question les textes lu ñu ko defaree ce n'est plus une question d'ivoiriens ou des choses comme ça c'est ce que disent les textes qui sont valables pour l'ensemble des huit pays mm. donc dootul affaire u le président de la République est obligé de, promulguer mais attention c'est une loi boo xamante ne c'est les pays de l'UEMOA dañ leen vous ne brassez pas beaucoup d'argent parce que vous n'avez pas l'information financière buy may ñi ñi di joxe xaalis kii dafay am pourquoi du ma ko joxe parce que j'ai pas assez d'informations sur Birima yaa ngi may laaj de francs CFA. est-ce que en Europe loolu. mais déglu am na fu ne. c'est partout. c'est partout ça veut dire quoi. si fii. mu ngi soog a yegg si mois mais fële yàgg na hmm. bu yàgg. ça veut dire hmm. c'est l'information. Hmm. financière boobu la ñu amuloon. ñu ne il faut ñu ñu ñu ñu dajale. amul fépp du fépp la. Euh, ah? du fépp la non du fépp la am na en Asie am na en Amérique latine. do euh, am mais s'il vous plaît. waaw ah, je vous ai écouté non non je dama bëgg a wax ni. dans mm. l' espace et moi. Mm. ñaari pays ñoo ko validé. dans l' espace muy d'Ivoire. mais loolu laa wax ak Niger. Mm. ñoo validé xam nga loi bi en soi. bu dee dafa demande consentement client bi. amul benn problème. non attends waaw mais dès lors que dès lors que dafa dafa nekk obligation. waaw dinañ ñëwaat léegi si il faut expliquer. non non pour nga sa pensée. mais il me semble que ci liñ wax man yaa ngi ne Niger Niger ak euh, kii. Côte d'Ivoire encore hmm. hmm. mais est-ce que newul une législation qui s'applique à tous les pays de l'UEMOA. waaw c'est dans l'espace UEMOA. waaw que la décision a été prise. waaw 2014 Sénégal je suis Sénégal waaw Sénégal waaw mais je Sénégal en 2014 pour mieux génne na loi mais loi bi ñun amuñu ci problème. Hmm. tant bu dee yow sa consentement da nga koy joxe. dañuy laaj sa consentement. Hmm. amul problème na loi bi dem. ñun lu ñu mën mooy ne gars yi bu leen joxe si. nga baal nga baal ma je veux que ça soit clair moi je fais la différence entre votre position personnelle ñoo ci d'accord ak li nga xam ne est-ce que oui ou non c'est promulgué que état yi bokk espace c'est pas encore promulgué au Sénégal euh, écoute mais non je dis est-ce que c'est promulgué pour que tous les états membres de l'UEMOA le ratifient non non non da ngay bëgg wala bëggoo c'est ça da ngay bëgg wala bëggoo je veux dire ah ce que j'expliquais dama ne loolu tax c'est pour ça que pour que nit ñi gën a comprendre affaire bi da nga nekk client banque nga bëgg a leb vingt millions mhm. banquier bi ne la pour ma leb la vingt millions yi pour ma lebal la pour ma lebal la vingt millions yi mhm. faw ma am ay information sa kaw parce que xaw ma la si mhm. yow foog ma am ay information xaw ma la donc damay xool est-ce que yow déjà mus nga am mbor fenn te fayoo ko est-ce que yow tu en règle avec toutes les facturations lu lay facturer léegi nag ma ñëw ba si yow de manière individuelle personnelle bu jéem a jam ay information si yow mm-hmm. parce que loolu mooy mën a justifier risque bu may jël jox la 20 millions est que dinaa si jot après mm-hmm. pourquoi ma commencer par ne ñun dañu tarde mais banques yu ñu fi ñu fi yor en général ce sont des banques de qui c'est pas des banque sénégalaises mm-hmm. c'est pour ma commencer par foofu lan la teg affaire bi lan ba ma koy liir ba ma koy xool jàngat ko ñaar laa si jàpp ñett un problème d'information financière sérieux moo doon tax kon xew na xew mënu ma am bor mënu ma mënu ma je peux pas m'endetter auprès de la banque deuxièmement problème d'organisation de de l'information financière on ne l'avait pas et problème d'organisation même de la finance mhm. on ne l'avait pas troisième chose mooy lan moo indi lii pourquoi la euh, comment dire la société financière internationale nous pose ce problème là. pourquoi mu ñëw indi ñu ko boo toogee nga xool banque sénégalaise boo si xoole peut-être doo mm. si dépassé deux. lu pour te dire que ñoom si kaw. Mm. voilà c' pour ça mu ne dañu tardé. parce que mm. lu ma bëgg et il y a la banque centrale oui. aussi excusez-moi qui, est d' dans cette affaire exemple l' aspect par exemple. moi je crois que c' pas. c'est une expérience ah parce que lii li muy wax nii mu ëpp na 15 ans c'est une réalité maanaam booy contracté benn prêt y a tout tout ce dont vous parlez là lépp dañ la koy laaj ah avant il y a de cela plus de 15 ans man gisuma en quoi moo tax ma ne j'ai pas compris parce que dañ la jox danga wér si non la jox une fiche la nouveauté sa yaay waxuma sax yow même sa yaay sa papa yéen feebar la ñu am mais tu à l'époque d'accord moo tax moo tax ma ne je veux comprendre davantage parce que loolu c'est pas nouveau par force la c'est pas nouveau man c'est ça qui me pose problème mm. euh, Cissé je veux comprendre très bien très bien Cissé après jàppal boobu euh, Papi vas-y vas-y euh, qui prend vas-y waaw mais man en fait man je pense que aujourd'hui am na loo xam ne même en tant que continent wala en tant que réew lu mm. ñuy wax solvabilité mm. solvabilité mooy que nga nekk nit boo xam ne Ah. mën nañ la mënees na laa wóolu hmm. dafa am solo ci principe bu nekkinu nit en général xam aussi quand on réfléchit il faut ñu réfléchir yan façon nit lañu nan la ñuy fonctionner hmm. est-ce qu'on fonctionne de la même façon que les occidentaux hmm. est-ce que dañuy def lu ñu mën est-ce que dañuy lepp lu ñu mën a fay on est dans un pays où tey jii léegi Birima Ndiaye mi bu génnoon ñu tëgg ko benn ñu si gën a bëri bokk. Hmm. tëgg benn benn prêt wu 300 millions. li ñuy njëkk a def dem jënd si benn 4 4 75 millions teg <laughs> non donc je dis Birima Ndiaye mën na nekk papis. je veux dire man dama lef non non non waxuma waaw bon papis hmm. dama ne. dama ne dafa am loo xam ne. dama leeral rek. waaw non non dama bëggoon wax waa papis. bi la kii bi nga tudd mu tudd. waaw moo tax jégalu naa nee naa papis. amul benn problème amul benn problème waaw d'accord merci dama ne. dama ne lan lay. bor aayul lépp lépp fay. bor aayul waaye fay la sant. jéggalu jéggalu jéggalu hmm. dama ne. Hmm. Euh, comme ay nit yoo xam ne dañu solvable. culturellement voilà culturellement. Hmm. on a un problème c'est la ñaata ñaata paa nga gis fii ñu décédé yoroon alal ju bëri banque yi di ñëw di jël di jël di jël di jël ñun bu ñu amee dañuy dañuy euh, parce que fii. soo lebee 100 millions di nga fay 150 millions. tigi mais bu ñu la joxee 100 millions bi nga téye ko sa sa sa poche. yaa ngi xalaat que 100 millions bi ngay dépensé mais xamoon daa fii ak 5 ans yi di ñëw yëpp di nga fay 150 millions. Mm-hmm. pour man dafa am benn ci affaire bi lu ci nekk lu ma intéressé mooy ce processus de jàngal nit ñi comment être responsable et comment être solvable aujourd'hui quand tu vas aux États-Unis tu veux mm-hmm. acheter une voiture. personne du génn foofu ay benn 10 euh, millions ñëw jënd oto bu bees ah, soo buggee oto buy jar 50 millions par exemple quand si tu as 5 millions boo ñëwee dugg si. ci mm-hmm. mm-hmm. concessionnaire bi ñëw ne ko maa ngeeg chèque gu 5 millions oto bi may jot cinquante millions lay jël xamul muy def dana naan jox ma. Ah, chèque bi non non jox ma chèque bi. Mm-hmm. yàlla naan mooy sa numéro social sécurité. nga jox ko numéro bi. mu def loolu la ñuy lay wax crédit chèque loolu. c'est information financière mooy lenn mooy que bu nee pour dugal numéro boobu def papis bu dee yore nga benn euh, banque xaalis dana génn mu ne ah kii il n'est pas solvable. mun ko hmm. jox oto bi. xam nga loolu tax tax na ba nga xam ne finalement nit bi bu jógee di leb xam na ni tey jii mën na rëcc mais bu lebee fii fayul tout sa vie mënul leb feneen. te loolu dafa bokk ci processus éducation wu ñun suñu ay nit. Hmm. donc quelque part aussi am na benn benn benn. progrès boo xam ne en tant que nit buñ ciy dem. waruñu loolu mooy loolu mooy loolu tardé bi. waru waru waaw moom laa c'est-à-dire que. il faut il faut que quand même ñu accepter. que ni si si jamono di dox dañu war a parce que ñëwoon nga fi wax ci mbiru banque yi. ñu ànd ak yow. mais nous aussi on veut être solvable. on veut boo bëggee akara da ngay ñeme kaani soo bëggee ñëw leb. bul bañ ku set ndax leboon nga fee fayoo parce que tey jii nii. waaw mais ça va au-delà boobu sa wérgu yaram. Ah, non non non mais mais mais pourquoi la c'est pas nouveau aujourd'hui ah la question qu'il faut se poser. man moo man question bi ñu poser. mooy au-delà au-delà du du bancaire. Mm-hmm. qu'est-ce qu'ils font de ces information pour man loolu moom mooy. question bi ñu war a poser mais. loolu loolu loolu dafa am solo mais li wóor ba wóor mooy que pour man la bataille au niveau des banques mu nekk li gën a leer. parce que day ni gis luy tàkk fii ngeen di teg luy saxaar xam moo am solo aujourd'hui on peut pas être dans un pays où seen taux d'intérêt yi nekk ci benn ah. benn niveau boo xam ne pour moi c'est ça la bataille. loolu ngeen war a xeex ah, mais sur ça je que y une logique quand en charge gis nga banque yi dafa xaw a doy waar na ñuy fonctionner. Hmm. xam nga li ngay wax nii. am naa benn xarit yoo xam nga ko Cheikh si. oui Cheikh muy def prêt du ma tudd structure ba. yegg ci gars yi ne ko il faut ñu dem kër ga quoi. mu ubbi salle bi ubbi frigo yi maanaam ñu def sa extraordinaire. ñu compter xool valeur à peu près salon bi ak nangam ak nangam. mais ci c'est garanti c'est des garanties mais loolu expertise la c'est tout à fait déet déet bu leen yegg ci expertise la. garanti def leen ndànk expertise yegg na ci bookar man ba ñu ubbi la ko salon. ma ubbil la sama chambre à coucher. ma ubbil la sama chambre. mais ça c'est les mutuelles professeur. non non justement mais. c'est des garanties bàyyi leen garantie nag waaye yéen def. qu'est-ce que vous la dignité humaine. qu'est-ce que vous faites de. non mais y a des logiques bancaires y a des logiques garantie bi mënta ñàkk. la banque est waaye dafa am. garantie bi mënta ñàkk waaye dafa am forme de garantie boo yoo xam ne nag doo fa yegg. mais professeur. tu n'as pas besoin. d'imposer à un client mais soyez sérieux. mais mais mais on est des est-ce que ubbi na ko. ah ubbi na ko je lui ai dit arrête c'est des conneries. faut pas <laughs> faire ça. professeur yow yaa ngi am sa xaalis di verser régulièrement hmm. na yem ci est-ce que li ngay verser. mën na solde li nga xam ne moom lay lebal mais la ca des waru faa mën a yegg parce que il viole son intimité c'est sénégalais il faut que professeur ba professeur benn aspect bi li gën a important mm-hmm. mooy monde bi ñu nekk comme il di pour terminer quelle est l'utilisation que l'on va faire après de ces données-là et de ces informations personnelles le, le, que c'est ça la vraie la ensuite benn ouais. aspect bi mm. nañ nangu toute l'escroquerie mais nécessaire mm-hmm. nous sommes l'objet par rapport au taux inflationniste oh, te amul benn xaw ma ndax am na inflation ou pas je pas informé mais on a le sentiment que les banques sont les CSM bu ñu pour cent en réalité on trouve ay 10 ou 15 pour cent vas-y pour wax sax dañ ko commencé mais bi ma déggee problème bi bi mu njëkkee wax daf ma gêné moo tax ma laajte ndax am na ci yeneen réew. am na ñun ma am na ci réew yu. am bari. ci la sama xel ñëw ne ah, yow mi jël xëy soxla xaalisu nit dëgg yàlla lebal ma sax xaalis te nag Sénégal attention ñu ci bari bu ñu lebu seen duñ fa duñ fa ñu bari bu ñu lebee. dañuy xool nuñ lay def sa magasin fii rek soriwul. di jaay ay yére rafet wala jaay oto di ko eh. daamu eh. tigi booy dëgg koo xam ne mënu fay sax cent mille. dëgg la de ñoo leblu un million. donc aussi te banque bi li lay jox xaalis jàmbur la. Mhm. bu la ko joxee yow boo ko lekkee moom day fay borom. Mhm. parce que boo dee sa xaalis ba bëri na nga taxaw jox jox la. donc je pense que aussi kii leble xaalisam war na am ay garantie. Mhm. mais man li ma xaw a gérer tuuti rek. ba si bu ci suñu yi Afrique. parce que tubaab yi koy def xaj na mën na ci boole respect respect dignité humaine def am na fa tuuti. Mhm. mais fii ah Birima Ndiaye ñëw woon ñaa ko est-ce que cancer nga est-ce que am jaber nga xam nga loolu man je me rappelle da la laaj man attention. ah c'est normal man Moussa def pré-banque. mais laajoon nañu sax say waajur si ñuy dund lan moo leen rey ah. Mhm. oui alors ah, de de ça xaw ma nag nii ba léegi mais yàgg loolu am Moussa def na xam donc je pense que aussi booy def xaalisu jàmbur daal sañ na nag kaay naan il faut ma xam la d'abord. xam foo jaar waaw. maintenant man problème yi du loolu. Hmm. mooy banque Sénégal yi non seulement leble wuñu day def prêt. non non banque yi nekk Sénégal. waaw bi yi nekk Sénégal mooy banque Sénégal yi yi nekk Sénégal léeg nga def prêt day def prêt un mois deux mois sax du ci jot. Hmm. oui deuxièmement da ngay yor entreprise dafa dugal say centaines de centaines de millions. un jour nga soxla sax benn dix wala vingt duñu la jox banque ak banque de Sénégal duñ jël duñ jël risque. Mhm. te banque dafa war a jël risque. waaw loolu dëgg la. duñu jël risque. il gagne quand le client il gagne non te dañuy gis sax sax d'ailleurs entreprise di verser xaalis bu bari ci ñoom dañu ko fa bàyyi. des centaines de millions ñoo koy yoral benn jour nga am benn affaire soxla benn dix millions de dépassement dañuy bañ loolu aussi c'est pas normal. deuxièmement protéger wuñu client yi ci banque yi. <laughs> ils sont livrés. banques lu leen neex la ñuy teg. ah bien Sénégal yi lu leen neex. Mhm. ñu tëral seen i loi am naa sax man fekkee naa benn histoire li ma wax en quatre que c'était en 2006 ou 2007. Mhm. ay travailleurs yi ma xool université ñu ñu doon génn banque man ci laa bokk 2006 ñu ñu ñëw nga def prêt ñoo soldé prêt pour changer benn banque mu ne pour ma jox la sa attestation wu ni. non non non da fay. wala ñu téye ko pendant six mois. di la dawal da ngay fay. man lem naa la yoratuma la dara. maa ngi dem ma ni bindal wala ni yoraluma la dara nag may fay pour bindal la lool. loolu la loolu sàcc la. pire que ça biir ba parfois dañuy bañ sax duñu ko. waaw donc xam nga pour vous dire que. il parce que liggéeykat yi nga xam ne salaire la yaakaar. Hmm. ci prêt lañ mën a équiper seen kër. ci prêt lañ am dara ku fi liggéey fii prêt nga yaakaar. mais boo et puis deuxièmement du dara les lebal prêt ñu la côté le tiers lay jox. nga dem un mois am na système bu ñuy nangoo sa salaire complètement mm-hmm. am problème yow ñu la kaay jox la vingt cinq mille francs weer dañ dëgg ba sa dëgg premier xam nga la rek jox la cinquante mille da ngay def à certain moment bu weer da ngay ñëw ah alors oui salaire dugg na démb ah. mais yoroon nañu mille francs boobu kër gu taxaw mais baax dafa protéger client waru la jox loo xam ne attanoo ko. loolu état ko war a protéger. Mhm. Mhm. sanctionné banque yi koy def. très bien Papis parce que de famille nga téye di ko gàcc di ko gàcc ba mu taxoon damay fayeeku. ma xam naa ñoo xam te ne un an fay yu salaire. bien sûr Papis waaw je veux dire oui. na autant on est très engagé. Mm. sur la cause des parce que nous sommes des clients de la banque. Mm. ñëpp ay mm. sommes concernés au premier chef. mais dafa am loo xamante ni mënoo ko dindil ñu waay di fonctionner c'est-à-dire principe ko. ay garantie la. la banque ne donne non, que soit rek la loolu. si euh, c'est quand il est venu ici pour la première fois. man dama ne woon damay souscrire si mouvance bi. parce que je me sens parfois victime comme tous les autres clients ñun ñëpp on est concerné. moo tax ma ne comprendre ma parce que lii du lu bees dans ma tête. Mhm. man dund naa ko ça fait comme mais pour glisser seen xam la moo ñu gën a motiver. au-delà de cette histoire là en nga gën ma ko leeral. waaw même au niveau du service. moo jox benn exemple bu ndaw tey dafa am sama benn xarit tey bu ma woo téléphone. nekk si benn banque je peux la banque peut-être. parce que ça hmm. fait du discrédit. mu ne ma maa ngi fii depuis 10 heures. ba ba ba 13 heures. banque baa ngi fees dell. gars yi def ay gars yi di fay ay ñeneen di def ay yaama neex. ba 13 heures ñu tëj leen ñu tëj banque bi ne leen dem leen 15 heures. xam nga ça c'est frustrant mu ne je vais appeler RFM je vais dénoncer ces c'est des combats qui sont mm. mais yooyu par exemple. ça mm. nous intéresse parce que c'est injuste. Mm. en tant nga expliqué ma sa. waaw Khalifa. Euh, euh, xam nga tey ñu ñëpp mën nañu nangu benn mbir. moom ëpp. diggante client bi ak banque bi ñu doole. Mm-hmm. bu banque bi armé woo client bi il est désarmé. Mm-hmm. banque saa yu tooñee client bi. client bi bàyyi naa ko ak yàlla lu ci ëpp lay wax. Mm-hmm. alors que client bi bu tooñee banque ba am na les meilleurs avocats xam ne da koy yóbbu tribunal daan ko. bu protection na naree am dama yaakaar ne ay loi protectrice des clients comme biir ma ni mu ko waxee. Mm. la ñu war a voté. Mm. mais loi bi nga xam ne day tax banques yi dootuñu jëlati risque. li ngeen wax dafa am. Mm. banque balaa mu laa jox xaalisam mosoo gis koo xam ne banque avec des légèretés jox na ko xaalis. nit ak nit sax. enquête ba ca war dana ko def. Mm-hmm. da nga joxe sa kër garantie. kër gu jar 100 million ku mel ni maire Sophie këram 100 millions ñu jox ko 14 millions. ban banque la ban risque la banque bi jël. saa yu foo fayul benn weer wala ñaari weer mu jël kër gi yóbbu ko tribunal ñu jaay ko au quart du prix c'est-à-dire bu dee 100 la ko expert banque bi évalué 25 millions lañ koy jaayee hmm. banque bi ban risque la jël banque yi du ñu jël risque amul benn banque Sénégal buy jël risque hmm. ñun amuñu woon problème ak loi bi buñ ko buñ ko buñ ko promulgué en 2014 tant que dafa nekk ci consentement client bi amul benn problème. Oui. mais obligation bi pose problème. obligation parce que sama feebar. du ma ko jox big bureau d' information. suñu kii la je mu koy commercialiser après après information yi fan lañ jëm. ci privé la jëm. da koy koy commercialiser. yow bi boo soxlaa prêt da koy dem jëndi. ñëw jaaywaat la ko. est ce alors que alors que. alors que ça ne change absolument rien. xam nga bigi changé wul dara parce que bigi information yi. da nga koy dañ koy facturer parce que moo liiral leen boo leen bëggee moo liiral leen le taux effectif global. Mm, mm, mm. boo xam ne day jël en compte. les frais là. léegi information bi nga xam ne da ko joxe gratuitement. parce que soxla nga prêt. te banque ba dana def lu mu doon def nga jox ko garantie cent millions lépp. mu dem jëndaat ko ñëw facturer waat la ko. ça renchérit le crédit. prêt boo soxlaa prêt yi day yokk. taux day yokk parce que 2014 dangu nañ parce que ñu ngi depuis la. qu'est-ce entre temps absolument rien. taux de bancarisation bu ñu bëggee mu évoluer il faut une éducation financière nit ñi ñemewuñu banque parce que gis nañ li banque di toroxalee doomu aadama yi. tey yow qualité de service bu amul ci banque sa salaire. Hmm. pour nga jot ko il faut nga rang ba ngoon. di wër di jël taxi di wër ci gab bi gab bi paan gab bi paan.

dañ lay dañ lay faral xam nga xam nga c'est rare mais am nga xaalis après c'est multiplié par waaw ma il faut que ma éducation financière xam nga ci nag il faut que client bi xam ne crédit bi banquier bi la gën a arrangé que client bi. Ah, découvert bu mu lay jox. moom la gën a arrangé que yow. dëgg la mais ba pare mayewul saraxewul. mais dafa am commission mais tax kaa dafa am ci lépp. day jaay le meilleur client de la banque c' est le surendetté. climatiseur bi le meilleur client de la banque. moo ko ko tey c' est le surendetté xamul tax. waay surendetté bi day jël prêt jël découvert ñëwaat ci diggante bi ne ko dugal ma fi dama am ngénte ak yooyu. ba nga xam ne kooku c' est le meilleur client de la banque. alors que alors que ça devait contraire. parce que tey banque war ta xool boppam rek. très bien war a xool entreprise bi. mu secteur Charles ak ki ci nan la ko koy joxe après ñu avancé. parce que waxtu yi jeex na pratique. mais mais man man man xam nga xam nga aussi. tey jii nii on a déjà fait émission bi fii. Mm. peut-être que dañ ci delluwaat. Mm. mais da nga ñëw ak benn benn sujet bien précis. te aussi je pense que ñëpp quelque part am ku nekk am nga frustration boo am ak banque yi ku nekk am nga ko mais aussi boo ñëwee ak benn sujet boo xam ne c'est un sujet précis ce serait bien quand même que ñu reste ci logique boobu c'est important sinon après on va aller je pense ah dans, dans tous les sens mm-hmm. man man si si principe bi c'est-à-dire que peut-être là où peut-être bu ngeen wax que ni peut-être information sur ta santé wala dara à un certain niveau mm-hmm. si près bi à avec un certain montant quand même les gens ils veulent savoir ndax yow ah, tu es en bonne santé mm-hmm. mais li am solo ba am solo moom laa la wax ni aujourd'hui mooy am na loo xam ne dafa am au delà de banque bi moom mooy que il faut que nit ñi bi aussi jóg di dem di di di di def prêt ah. que banque bi assuré wu ko ni jóge woo ci banque bi. Mm-hmm. nga nëbb ko benn ko côté dem fële dem fii parce que on sait tous que par exemple pour man nit bi nga dem ci benn banque bi mu tëjal la bunt bi wala nga am fa benn pare boo xam ne mënoo ko fay mais. logique bi ngay njëkk a def mooy naa dem ci beneen banque dem ci benn def fa beneen prêt am na gars yu bëri yu def loolu. mais waaw non dama ne dama ne banques yi dañuy bëgg a di am accès ci yeneen banques yi. te loolu je pense que amul man amul ma ci problème personnel s'il te euh, amul benn banque boo xam ne balaa mu laa jox prêt doo ko jox garantie yu wóoru même boo amee feneen ay prêt. da ngay xam moom l' mooy na nga ko indil sa këyitu kër. wala nga andi ko say bulletin de salaire on ne parle pas de la bu dee salarié dama bëgg wax ni loi bi changé wul dara lu dul obligation ba pare beneen bi mooy question bi ngeen posé mooy suñuy information fan lay jëm mais c'est la question mais la nag wax na nag wax na nag fan lañ koy commercialiser parce que ko jaay rek banque yi le sens de ma que nit dana ñëw dugg bëgg dugg Sénégal day dem jëndi information yi wala ku mu mënta doon mën na dem jëndi information yi ñu koy commercialiser. ah non il n'ose pas ah oui. non je passe pas kan moo la ko mën a tere. waaw mais mais mais li ngay mais li ngay wax ni li ngay wax ni c'est très grave. ñu koy ñëw benn business le business des temps modernes. waaye c'est la vente. des informations Charles Khalifa. Facebook c'est gratuit non si c'est mais qu'est-ce qui se passe. c'est la vente c'est le commerce des informations. non attention si c'est les faits sont sacrés. lu ñuy wax ni.

Mais c'est l'information financière. Les petites et moyennes entreprises, la toute petite entreprise, comment elle peut accéder c'est pas que l'information financière. Non, attends, c'est pas oh, oh, l'information financière. Mais c'est un manque de garantie. Écoutez-moi. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Vous savez, les banques au Sénégal ne prêtent pas aux pauvres. Je vous ai écouté. Je vous ai écouté, s'il vous plaît. <laughs> Ça veut dire qu'il y a des choses. Moi, je ne suis pas un populiste. nous sommes tey nous nous dañu am benn mécanisme financier boo waaw s'il vous plaît depuis ñum c'est fini waaw s'il vous waaw yow kay yow soxla la rey soxla si yow ñëpp gis nañ am dama bëgg ne da ngay jël BCEAO mais attendez ah, nous avons nous avons mm. la BCEAO la BCEAO dap nun la c'est nous sommes deux cent et quelques millions xaw ma ñaata concernés par cette baisse peut-être moins cent et quelques millions par cette BCEAO ñu jël décision boo xamante ni politiciens yi jël décision ñëpp jël décision par rapport à une réalité économique boo xamante ñun dañ koy jooytu bés bu ne ñun ne dafay favoriser léegi ñu ne information yi il faut que ñu am ko pour oui. l'organisation de l'information financière yow nga ne lii bëgguma ko mais kon bul dem lépp alors alors Famara Famara Famara Cissé wax ñu pour ah, terminer ah, ah. euh, essentiellement da ñëw pour pour euh, dankaafu dama ñëw pour wax ni am na ay loi yu ëpp solo loi boobu yoo xam ne bu ñu ko voté woon ci dëkk bi problème yi ngeen di wax yëpp danañ ko lijjanti. boo demee France moo fa am la loi sur le surendettement. Mm-hmm. bu dee question de surendettement bi lañ bëgg a lijjanti. Mm-hmm. nañu régler la loi sur le surendettement. Mm-hmm. boo xam ne danañ xam nañ ñoo surendetté. wala nañ ñoo surendetté les taux usuraires si c'est taux yi les taux ah. d'intérêt sont exorbitants. dëgg la il faut que ñu xool nan la ñuy wàññilee entreprises yi comme particuliers yi seen taux d'intérêt yi. banque amul problème de garantie. Sénégal amul benn banque bu la ne damaa am problème de garantie. parce que tey information yi mu bëgg ni ma ko ko professeur waxee day ñëw ba sa kër. ba sa chambre à coucher. Ah, évaluer lépp xool ndax dina la jox wala du la jox. ça c'est la microfinance. c'est la microfinance c'est les microfinances et les banques même le font beaucoup de banques le font. oui oui tout c'est une manière. Mm. et puis ñun on paye des risques. Euh, on paye des assurances, on mm. paye tout. Oui. On assure le prêt oui. et tout. C'est ça le prêt. Qu'est-ce qu'ils veulent encore Très bien Cissé. À part prendre nos informations personnelles oui. à des fins commerciales, Merci, à des Cissé. usages Donc mercantiles. le combat continue. jërëjëf gis-gis. ni bi yu teddi ci melaxi xawela alors euh, Boubacar Boris Diop journaliste écrivain mu ne ay ay réew yu am kàttan euh, du ñu euh, si benn moyen maanaam ñu ngi def seen kem kàttan ak lu mu jar ñu jënd ko ngir fexe ba daal di ñuy euh, euh, tàggatle ak suñu cosaan suñu caada. Mm. fa ñu soxe ko te ñi nga xamante ni ñoom lañ ci gën a ciblé ñi ñuy diir. yi si ëpp moom mooy tarixa yi de riches pays étrangers ne lésinent pas sur les moyens pour mm-hmm. nous déconnecter de nos origines et leur principale cible ce sont les confréries papis totalement en phase avec lui d'accord Charles ah oui professeur waaw wax nañ toujours que notre problème c'est l'aliénation culturelle parce que suñ culture suñ cosaan mooy suñu doole boo ñu bëggee noot foofu ngay njëkk jaar noot ñu ba ñu mel ni nga bëgg ñu mel bu fekkee da ngaa mel ni ñu mën nag seen liggéey day daal di yomb kon nag nu dëgër laay bi gën a taxaw si si walaay ah, walaay Birima leen musibal en tout cas bu dee moom def la ñu ñu ñu ngi bëgg a réussir gëmoon la sunu maam bi gëmoon lu bari ñu koy bàyyi hmm. boo waxee sax ñu la li c'est pas modèle tubaab bi war a dof donc vraiment en tout cas war nañu bu dee li may xaw a tiital na bu dee tarixeet ñun tarixe lañu yaakaar musiba am na. bu ba ah, mais lu bees ça veut bataay que c'est une bataille éternelle. Hmm. ñun ba ma ba ma juddoogulee ba léegi. Hmm. te li ma fa li ma fi dégg sax ba léegi. Hmm. bataille bi du tey la commencé du tey lay jeex loolu xam nañ ko. très bien bis topp. Papis soo non je ne suis en. Papis wax na ne il est en phase Papis wax na ba pare. alors Abdoul Mbaye président euh, ak mu ne bilan président Macky Sall taxu koo demee noonu daal. Charles Satteri oui. pourquoi. parce que si le bilan n'est pas très favorable il est quand même favorable. donc je ne pas c'est en termes de communication <laughs> de l'opposant alors si c'est je alors je me suis demandé man est-ce que réellement moom lii la wax ah, n'est pas très favorable ça qu'il est favorable mais il n'est pas très et bu ma gisee euh, que c'est un monsieur de l'opposition monsieur Abdoul Mbaye mm-hmm. après bon je ne sais pas après français ah euh, après il parle bien français waaw bu waxee lii ça veut dire qu'il dit que le bilan Alors, non, non, non, non c'est la perception qui compte. Je suis désolé en communication, c'est la perception. Mais Charles, on est bien d'accord. Ah, Mais mënoo sama xawaane. yow français nga. mënoo sama xawaane ba xam. man daal ba xam li mu bëgg a wax en tout cas li mu bëgg a wax man ngir na ma ni wax na li mu bëgg a wax parce que am may dëgg la tubaab nag mais c'est ta perception déedéet il y a c'est la perception bo buuba waxal en fait man li duñ si discuter Charles parce que yow communication la bon d'accord du affaire journaliste de communication waaw baax na depuis Ndioum il a perdu la tête mais je te jure ah. <laughs> depuis Ndioum j'hésite à en parler mais s'il continue euh. <laughs> waaw waxal mais mais en fait si phrase bi <laughs> c'est-à-dire pour man lii xam lan lay euh, lan lay signifier mais

en parlant français. ah il est excellent en français mais nag loolu moom moo jaaxal en fait en réalité non c'est la communication mais mais peut-être en tout cas le trait là bu fekkente ne loolu la. boo ko lire c'est compliqué absolument interprétation en fait mhm. basique mooy. lui il propose aux Sénégalais ultérieurement. peut mieux faire un bilan très favorable. peut mieux faire. ah oui ah bah non mais Papis Papis ça c'est autre chose. c'est sa perception. c'est ça mais c'est le seul à avoir une telle perception. Ah, il est il est généreux. pourquoi tu dis ah non il a il a généreux. il a d'autres il a normal. waxu Abdoul Mbaye li ma ciy wax. Mbaye bu baax di wax yoo xam daal pour des raisons personnelles mais quand même Macky Sall ba nga ko attaqué fu ne ci réew mi ba mu des ci bilan ay bis topp président Macky justement euh, président de mu ne euh, yéen ñëpp d'accord ngeen nag man ne ci jëf laa taxaw maa ngi féddali oo bi ma leen di oo ngeen ñëw ñu ñëpp góor jigéen ñu jëf. Vous convenez tous avec moi que je suis dans l'action. Je réitère mon invite à toutes les Sénégalaises et à tous les Sénégalais à nous rejoindre dans l'action. Birima. Très bien dit. alors. yomal xëyam. bi fa see attendu Birima. yomal xëyam. yàlla jëf lay fay dafay wax. moom la maam Thierno Fall waxoon de. jëf rek a wóor. jëf rek a wóor alors. waaw euh, damay paas parce que. <laughs> alors. Euh, Charles. sa way campagne bi commencé la de. professeur présidentiel bi. c'est aux accents très gauliens man ma ko déggee rappeler euh, l'appel euh, général bi bàyyil dóor di campagne électorale ngay wax dëggul. Sarr opinion bi yow tamit xoolal. waaw depuis Ndiouma il est complètement déréglé mais bon c'est une autre chose. il a perdu le nord Charles. non je, je, au contraire je l'ai gagné am na lenn ah bah, peux pas être. Euh, am na lenn ok d' accord am na lenn. boo gisee ma institut cest à xaw ma ci ban perspective la waxee ah. mais boo nee dans l' wax dëgg yàlla feebaru réew mi la est un pays mais où on se nourrit de bavardage. Mm. tu te demandes quel est le temps du travail. Hmm. il faut qu'on revienne à ce culte du xalifa. donc autrement dit il n'est pas dans l'action mais chaque matin. autrement nga yeew ndekkee diw def na lii diw def na lii diw def na lii. Hmm. bu semaine boobu jëlee nga jël keneen bu loolu jëlee nga keneen. Hmm. mais un bavardage boo xam ne tu te demandes quand est-ce que. nous nous arrêtons. pour travailler. très bien Bouba pas dans l'action. waaw mais pour man liy suite logique gu sa phrase bu njëkk bi la. sama phrase ban. bi nga phrase Abdoul Mbaye bu Abdoul Mbaye bi. waaw voilà moom laa lay wax nii <laughs> président. <laughs> danaan damay liggéey maa ngi avancé ànd leen ak man ma am deuxième mandat c'est-à-dire que moom laa lay wax nii jàngaloon. dara dara lii c'est de la politique. Oh. politique rek Papis. man c'est une question est-ce que le président aurait pu dire vous convenez avec moi sénégalaises et sénégalais que je ne suis pas dans l'action. Pour le coup, Charles, ça c'est de la com. Vous, vous conviendrez avec moi que je suis un homme d'action. Pour le vous coup. conviendrez avec moi que c'est par cette action que je vous mènerai aux certitudes Mais pour 2019. Mais ça, c'est une communication que j'offrirai pas. bon, alors, alors Birima. Birima wax nga. nee na jëf nee na keroog ah d'accord baax na léegi nag léegi am na am na bu si topp. mais balaa ñu koy teg ñu jéggalu rek ci kàddu yi parce que taxu koo rafet loolu waaye xam nga dafay baax euh, bu biir amee ñu xam lan moo ko waral ñu bari ñu ngi laaj lu tax ñu jàpp Barthélemy Diaz ñu déglu hmm? moo tax tey jóge tey magistrature bu Sénégal feebaru dana ma yàlla jëg dana ma yàlla baal ci kàddu na ma Sénégal yi jëggal tam ci kàddu dama ne du yi rek ñoo nekk ci mbedd bi yor seen ay fii ci biir pale bi dafa am ay magistrat yi nga xam ne dañu dañu nangu doon ay cagga wàcc seen pantalon ngir la neexal loolu moo fi am dama xool nag fan lay mujjee wax ci wax ci mooy lan dëkk bi ñoo ko bokk dañu Papis navré bon je ne peux pas commenter. Bouba. waaw mais bon euh, yenn wax yu ñaaw yi moom man franchement. Hmm. Euh, xaw ma kan moo koy cautionné waaye tudd boobu. professeur. je suis absolument d' accord que fii suñ culture ak suñ lépp day jafe pour ñu. waaw donte bu dee dëgg la sax da nekk dëgg bu tumaranke hmm. donte bu fekkoon ci dëgg la sax am na noo koy waxee hmm. gars yi dañ naan bu ko waxee noonu da koy wodd ngay dégg gars yi di wax kon wodd wax dafa dafa am solo la non il n'a pas le droit de parler comme ça non. peut pas xam nga je suis profondément choqué par ça mm. parce que ma déggee lii quoi non dañuy wax il faut que ñu wax Sénégal bi mm. on peut ne pas être d'accord mm. am nañ tribune mais tey dama wax sànq turu benn juge bu tudd Moustapha Ba 88 ans ba am ñoo xamante ne dama leen xam ñooñu boo mooy tul ten seen xol jooy na lu ma mën a jàpp mooy que euphorie di wax ci biir euphorie mooy indi yii. Mm-hmm. sous le coup de l'émotion. l'émotion. Mm-hmm. dañu war a xoolaat suñu bopp. Mm-hmm. jaral jarul fi tey ci bés bi tey. ñuy téye suñuy kilifa di leen wax. c' est dommage mais malheureusement du du commenter waxu politicien. mais si c'est li ngay yow li ngay def c'est de la politique. non pas du tout. c'est de la au sens noble du terme politique. non mais au sens noble du politique. c'est la politique citoyenne nous euh, financière. moo tax lépp c'est de la politique waaw d'accord lépp c'est de la politique. da jekk rek mais bëgguma di. waaw Birima Khalifa. Hmm. Euh, yaakaar naa wax bii nga teg moo gën a sedd sax gën a neex bi wax ci ngoon gi. Hmm. bu la tegalee bi wax ci ngoon gi da ngay jàpp sa génn. Hmm. waaw wax bii. li muy bon bon bon bon li mu wax ci guddi gi moo gën a bon. man dama xamut xam nga wax ji raay bi ñu nekk ci réew mi laa xamut lan la nit da ngay yaru nit da ngay loo xam ne bu ko waxee sa waajur wu góor nga rayante jël fital dóorante su ko waxee sa mag nga rayante doo ko wax waajuru jàmbur. très bien merci Birima. waxu non ma megale. waay gis-gis la de. gis nga réew mi ñu nekk. Hmm. ñu ngi foyee loo xam ni. Hmm. bis bu ñu ko bàyyi ba li nga wax léegi. Hmm. ñun dañoo mos sa yar ci loo xam ne mu sorom sax sa boroomu mag. wax wax ju noonu. Oh, nit dafa yaru. Hmm. nit dafa yaru. mais nag man dama doon ñaan xalif waay waaw mbir ma loolu yëpp dëgg la waaye nañ ko may boo lii wees rek. Hmm. ay talaata ak altine comme label du woor na boo koriteem jot. très bien ma ne ah, émission bu dee yow wax lii ci réew mi nag. ku wax lii ay nit ah loolu yaa. dama la en tout cas dama la buñ ko waxoon léegi jàngalekat doo la ñaaw na. dama la buñ ko waxee woon nii da ko jàngalekat. li ngeen wax li ñuy wax benn dama la. ñaaw na ba fu ah. mu yem. Ah, waaye comme mu ngi ci réew mi di fi yeewoo. te woor na boo nangam ak nangam buñ ko mënee baal sax professeur bi xam nga wax bi mu wax bi mu wax xam nga kaddu yi ku ñu la ma wax kaddu yi kaddu yi xam nga wax ngoon birima li la wax nii mais xam nga luy kaddu yi waaye li ci des li ma ci yokk maa ko ci assuré sama professeur xam nga dañu am benn rôle. ci réew mi ah mooy xamal nit ñi lu xew. nu mu tëddeeg nu mu machin. Ah, ñu bari ñu ngi naan xamuñu lu tax ñu jàpp ñu bari dañu yaakaaroon ni en fait. c'est mm-hmm. par rapport ak ah, euh, Khalifa Sall yu demee noonu. Mm-hmm. moo tax rek ginnaaw bi ñu jégaloo ci kaddu yi parce que mm-hmm. kilifa gu nekk mu ngi ñuy seetaan. waaye dafa doon baax rek pour askan yi seenam xel gën a leer loolu rek lañ si jublu woon. waaye du lenn parce que Barthélemy si boppam bi muy tàmbali jégalu na parce que xamu na li muy wax du lu rafet hmm? voilà donc waa jàkkaarloo bi lii la ñuy tàggoowee ça c'est votre dédicace je dédicace ce livre à l'équipe de l'émission Jàkkaarloo de la TFM à qui j'exprime toute mon admiration et c'est signé Mbaye Birom Diouf l'auteur de lumière invisible lumière invisible moom c'est un gendarme ancien officier supérieur de la gendarmerie nationale professeur gis livre bi intéressé na trop trop donc comme ñun ñoo ko bokk yow yaa kaa njëkk a lire yow la ma njëkk a lire non non non prof laa njëkk a lire après buuba non dañ rang wala ko joxee déwén pare de may ma ma jaay ko nga jaay la ko am charles bi kay. jaay ko ah, non damay damay ne rek. alors monsieur le général haut euh, commande kii mooy defe naa Maysa. Maysa Maysa Niang waaw gendarme bu ne dina joxe waxoo privé. Euh, prix bi après après. gën leen jël prix si gendarme bu ne policier bu ne mais waa jàkkaarloo moo ko fiy njëkk a commencé. waaw man daal dafa am loo xamante ne a jënd benn. waaw man man du ma xaar parce que yéen. xalifa nga may ma rek. Mm. xam nga déet déet mais Charles regarde le prix c'est derrière. non non non non non non non mais c'est délicat Charles daf ñu ko may. waaw man Charles mais jënd naa benn livre. symboliquement Charles acheté le livre. <laughs> merci beaucoup alors merci beaucoup euh, monsieur Mbaye Birom Diouf <laughs> ñu lay gërëm di la sant <laughs> ci dédicace bi ah et euh, excellent week-end professeur à je passe la main waaw on va lire et commenter pour lui jënd leen fay leen lire amul problème merci excellent week